la fa la la hai la la fa ben tour woy tudd man nañ ne da nga ca bëgg leneen man nañu wax ni da nga ca bëgg leneen da nga caa bëgg daraja wala mbolo wala alal wala nga ragal ci sawara wala nga ragal ci sawara wala nga bëgg ci aljana ba mu dess wi tour yalla yi kese la bala nga ko xam te nga xam nii mu ko waxe won sang nga def nga di ko jëfandikoo ndax wax nan ni fu goor yalla di egg mën na ko faa yeggale te dañoo wax ni ya. mag ñu mag yi taalibe yu ya fu ñu tew tudd baatub laa ilaha illallah. di tudd baat laa ilaha illallah. dañuy dem ba mujj yàgg. dañuy dem ba mujj yàgg. ca mbooloo ma. ca mbooloo ma. am ku ne man fii ma taxaw. am ku ne man fii ma taxaw. yëg naa ne suuf àttanatuma. yëg naa ne suuf àttanatuma. di ko def mujj yàgg. di ko def ba mujj yàgg. ñuy daw ci suñu sàkket. ñuy daw ci suñu sàkket. sellal gi nag. sellal gi nag. ak dëgg gi. ak dëggu gi. moo waraloon koy defee. moo tax bii ngeen koy def. bëgguma ngeen bàyyi. sëñ bi nee na bëgg woon ngeen bàyyi. doy na guddi sëñ bi nee lii rek doy na guddi gi. kon nañu xam li ñu Cheikh Ibrahima Fall defal. nañu xam ni ñu seex Ibrahima Fall defal. jëf jël. jëf jël. ak tudd yàlla. ak tudd yàlla. kon loolee. kon loolee. buñ ci saxee rek. buñ ci saxee rek. lépp lu ñu bëgg. danañ ko am tey. danañ ko am tey. am ko ëllëg. am ko ngeen jëf ci ndigalu sëriñ bi lañu yëkkatee kàddu yooyee xam naa waxtu wi guddi na ba noppi te sëñ Jibril Mbeng mi sëñ bi dafa wax ni da cee bëgg mu barkeelu ci kàddu yi te uh, am lu ci war toppaat ci tënk rek sëñ bi dafa wax ni mu ngi sant daal mboolem taalibe yi fi teew yépp kenn ku nekk xam na ni jànkoo nga ay coona bàyyi sa yitte bàyyi lépp ngir ñëw ngir teewe bisu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin yi kon mbooleem ko fi teew rek sëñ bi mi ngi lay maasale ci baatu sant goo xam ne sant na la bu wér ci bis bi ngeen teew ngir jëmmi yàlla ak jëmmi Cheikh Ibrahima ak jëmmam ju tedd ji mu ngi sant tamit maanaam presse bi nga xam ni ñoom jamono ju nekk saa bu ñu yëgee nii mi ngi nekk ci liggéeyal Cheikh Ibrahima bii ñu ñëw ànduka ak moom mu mel ne Lamp Fall Touba làmp Lamp bi ñoom teew nañu fi di waa Jazbul Murid jamono ju nekk ñuy ànd ak sëñ bi ci lépp lu mu mënti doon ci xam gu ñu xam ne sëñ bi mi ngi liggéeyal maamam ñu bëgg ko di ko jotale mbokk taalibe yi ak mbokk jullit fi ñu nekk ci àdduna bi yëpp loolee seen yéene ak seen pas-pas lañ koy def si diggante ak sëriñ bi ba tax na sëñ baa ngi leen si sant bu baax waa Thiès média yi nga xam ne tamit ñoom ñooy jamono ji nekk ñoo ngi nekk ak sëñ bi fee ci Eh, xam li waa làmp Fall xam ci sëriñ bi ñoom jamono ju nekk tamit ñu ànd ak sëriñ bi sëñ bi tamit mi ngi leen sant bu baax a baax kon ca kàddu cant yooyu daal la sëñ bi waxoon ne nañ ko jiital ci mbokk taalibe yépp nag fu waay bàyyi ko muy par jëmm ak mbooloo ak kilifa ak ku manti doon sëñ bi sant na la gërëm na la ndax xam na ni waxtu wi ku fi teew ak fi nga bàyyi ko yépp yàlla ak jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ak jëmmam ji ñor na la ba tax nga bàyyi kon loolee lépp mi ngi leen di tënk ci baatu cant goo xam ne cant na léegi di ko seera maam Serigne am Lamp Baabul Muridiin ci tënk rek xam naa baat bu gàtt daa am lu may bëgg wax muy ak leeral muy nañu xam ni sëñ bi amul ak jot jot moom amul ci dara te ku xam sëriñ bi di nga xam ni lii may wax moom ak astafurlaa duma ci fekk ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee Thiès lu néew la ñuy gis sëriñ bi ndax ci yitte yi sëriñ bi mu nekk ak yitte yi nga xam lépp jëm ci liggéey Cheikh Ibra kon bu fekkee ne sëñ bi daa bàyyi loolee lépp teew fii loolee képp kuy taalibe wala nga bokk sëñ bi jataay bi loolee war ngaa war a xam lu ma doon sëñ bi moom àdduna taxu kaa jóg lii xew ci àdduna tey mbooloo yi di daje di kër këri di puukare loolu taxu kaa jóg jëmmi yàlla ak jëmmi liggéey Cheikh Ibrahima Fall moo ko tax a jóg li ma ciy leeral nag jotaay yi lu koy waral ci moom mooy naka sëriñ Tuubaa bëgge woon sëriñ Tuubaa dafa jógoon yàlla am lu mu ko sant ci mbindeef yi ngir mu xettali mbindeef yi dimbali leen jëmali leen seen borom looloo taxoon a jóg sëñ Tuuba loolee nag sëñ Tuuba bu mu fiy jógee maanaam yóbbaale ko dafa fee bàyyi ay jëmm yoo xam ne dañ kaa war a wuutu ci loolu sëriñ bii nag doon nekk ci maama maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin loolee laa bëgg mbokk taalib bi yëpp nañ ko xam bu baax loolee nag jotaay bii boo leen gisee sëñ bi lu muy xat-xat ak lu muy ñàkk jot yëpp mu bàyyi yitteem yëpp ñëw ànd ak taalib yi di di di bokk ñoom jotaay loole li li li koy firndeel mooy sëriñ Touba dafa wax benn bis waxtaan wu gudd la wu guddoo gudd waaye ca dama ci am lu ma ci cuqat rek ngir xatu jotaay bi sëriñ Touba daa ëbb lu yàgg benn bis ba tijji am mbokki taalibe yi ay magi taalibe yu ko namoon ba ñëw laaj ni sëriñ bi mbëkk néeg yi yor caabi bunt ya bu mu laajee ba ñu xam ne sëriñ bi fii la mujjee tëj ay buntam yor caabi ya di fëgg bunt yi di ñëw ba si yàgg di laaj ni ala ñu nekk fii ay jinne lañu wala ay malaayka lañu wala ay nit lañu sëñ Malla daane ko ñun de ñooy sa ñoon gi xam ne yaakaar ñu ku dul yow sëñ bi delluwaat nees tuuti sëñ bi ni ibbiit daal di ñëw toog wax ni daal di leen nuyu ñu leen ba jàmm la ñu ko jàmm rek mbàkki sëñ bi jàmm sante moom sëriñ bi wax leen ne damaa toll woon sama diggante ak sama borom foo xam ne bu muy egsi si yéen amoon naa melokaan woo xam ne leen ma gissone rek manam do leen ko meuna dekk ba di leen leen am luma mu sama digeenté ak yeen ni leen nak buma toll am naa fu toll won sa borom di wax ak sa borom goor mak mom lañu wax manam mm, shaytané di dem ba fa meuna toll di déglu li may wax sa sama borom ba ma ni ko kan la mun ma man la goor mak man ko loy def fi dama bëgg nga top sama baram ci la waxé ni ko si la seytaane moom mu daw giiju penk ba giiju sow daal di dellusiwaat sëñ bi bu mu geesuwaat gis ko ni ko yow xanaa waxumal woon kii kan la mun ko man la góor mag mun ko xanaa waxumal li ma topp sama baram bi mun na ko ba nga ko waxee def naa ko ni ko waaye nag dangaa yor sama alal joo xam ni boo ma ko joxee maa ko moom boo ma ko joxul tam dama ëpp doole nangu ko waaye maa ko moom sëñ bi ni ko dañ laa soxlaalul dara loolu lu mu doon mun ko dangaa yor sama ñetti ëmb bi njëkk mooy ndaw lu toll ci liggéey te nangu la liggéey sama alal la boo ma ko joxee maa moom boo ma ko joxul maa moom jigéen ci toll si sëy te nangu la sëy sama alal la mag mu to mag moo xam ni daa nangu da daa toll si jàmm te nangu te jàmm yàlla tamit kooku sama alal la sëñ Tuubaa ne ko fobal yóbbu ndax soxlaalu ñu la dara bu mu waxee loolu sëñ maa la jax daal di jëm ni ko kon de mbàkke loolee dina dellusiwaat bu boobaa dina yaatu sa njaboot lool sëñ Tuubaa ne dënd ba sa dugg ci biir daan leen néeg leen ma ñëw mu ñëwee daal ni ibbeet daal di ñëwaat ni leen wax ngeen dëgg waaye yabal naa ci Cheikh Ibrahima Fall nee naa ko na ko dab te dam nangu ko daan ni teg naa leen nag Ibrahima Fall dina ñëw léegi dina dab dina daw dina dina ko nangu te dina ko indi fii daal ni nee leen néeg néegi yor caabi bu Cheikh Ibra ñëwee nañ ko ibbi ndax dafa yàkkamti nees tuut la ñu wax ni Cheikh Ibrahima Fall daal ni jaleen ci ëtt bi di di di di ning di dox di jaabante di jaabante nees tuut suñ toile dul Cheikh Ibrahima ko Cheikh Ahmad ni ko sëñ Bamba mo ne ko Ibrahim maam góor Mak manam jortu wul ndax du wax deug du def deug te du and ko kuy def dëgg daane ko nak dab na ko te nangu na ko te dootu ko fa ñëmé jëlisi si Touba ni ne li ngeen Ibra Fall moko wax la bopam dal li nak ah ñi nga xam ni ngeen may soxla non la leen di soxla fofu nak la bëgg indi nak luy wara jotay jotaay bi sëñ Touba dafa wax ni nit ki bu la yaakaaree top la jamono ju nek war ngay ak mom di wax ak moom ba nga ko war a dimbalee mu leer ci boppam mën a jaar ci yoon woowee loolee mooy jataayu sëñ Seex Ngunda jamono ji nekk ci biir taalibe yi du dugg ak seen biir di xam wi nga xam ni yoon maam Cheikh Ibrahima Fall la Cheikh Ibra nangoon nam woon ñu teg ko ci ay taalibeem nangoon cee jaare taalibe yi loolu moo tax sëriñ bi di bàyyi yitte yépp di ñëw ndax jamono ji nekk moom ni mu ko bëggee woon sama jamono ji nekk di nekk seen wet di gis gisanteeg yéen li nga xam ne moom lañ ko sant ci yéen mu koy def loolee nag mooy tax jamono ju nekk bu bu ko amee tuuti rek mu mën ñëw nekk ak kon jotaay yooyu buñ ko amee ak diggante ak sëriñ bi nañu xam ne loolee ko waral ba dafay bàyyi koo jëmale si sëriñ bi jëm ci ñun ñu mën kaa dékk jëfandikoo ko jariñoo ko ndax rek mooy njariñ loolu mooy Pastef yi xam naa luñ ci bëggoon wax bari na waaye loolu lañ ci tënk nañu xam ne sëriñ bi daal yëngu-yëngu àddi yi nii yii di am ak mbooloo yii di am ak yi nga xam ne moo tax a jóg ñenn ji loolu taxu kaa jóg li li li li daloon sëñ Touba sëñ Mountakha wax ko barki dem looloo ko dal ku dem mu dem ku demul mu dem moom xam na fu mu jëm te fu mu jëm moom xam na la mu fay fekk ku xam fu mu jëm nag moom te te lépp leer ko bu ñu nangoo jug di topp di di am lu ñu lu ñuy sant di ko digal daa bëgg moom fa mu jëm ñu jëm fa mooy sunu ndam àdduna ak àllaaxira loolee daal laa bëggoon ñu teewlu ko xam ko bu baax a baax maa ngi jéglu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon Cheikh ma moo raw ku jëkk moo raw ku mujj góor góorgóorlu te xam ni am ngeen koo xam ni wala am nañu koo xam ni ko ànd ak la nga bëgg ci yàlla da ko am la nga bëgg ci adduna gii nu nekk da nga ko am muy Serigne Cheikh Ngounda ibnu maam Saliou Ngounda Saab jigéen Ngounda yaay debbo Saab Ngounda borom taar bi. ngunda mi ci nelaw yi ngunda mi nga xamni bu la nelaw mam Cheikh Rafal day wax ni ngunda sa mom bu ko kenn yeebuy nelaw ndax ci nelaw yi faj aajo may wax ni day faj aajo ci nelaw ya waaye jëm ji lu nekkal day faj aajo ci buy nelaw waaye day xettali bindu fi bu nelawul Yeah, lor ma di maam Saliou ka daa faji lor te la neexoon dëkk ay këri kaw mbaa ngay wareelu ci walla bu amoo ci soxla danaa leeral ci yow li ma xam sëriñ Seexu Nda Faal sàkk woon koom dina ko ko toj si diira mboolem murid yi jëf ji mel na ni lem mboolem Baay Faal yëg nañ sa jëf ci liggéeyu Bàmba bi jërëjëf sa mbay rafet na ci toolu Bàmba yaa bari jom yaa seetlu nooy jëfe suñu Cheikh Lounda yow faal yaa seetlu nooy jëfe yow faal lépp dëgg na bu wér maam saali woon dëgg na noo ngi wan yoon wa nga jëm fa ma nga toppoon Sëriñ Tuuba awoon fa nga ci jëf lu rëy laa war yaa si jiitu la xam suñu Cheikh Lounda faal rey nga samaam lamp yow yaa seen laay jikko faal dagara yi jëf noppi farlu jub di taalu be Bàmba buy sàkk li ngëneel ak ndam yaa seen jikko rey jëf noppi farlu jub di taaliba Bamba buy sàkku ngërëm ak ndam yaa sell ay jikko rëy jëf noppi farlu ko jub di taaliba Bamba buy sàkku ngërëm ak ndam bu Bamba yàpp teewaatoon du soppi ci yow lu toll ab sa rayaale weeral te xam fa nga jëm ku sopp sëriñ Cheikh Ndunda maam Saalim sikki maam bu bambaak lampu teewaatoon jaajëfal sëriñ bi sant maam Cheikh ndax sëriñ Touba nangoo sëriñ Saalihu Mbàkke xaadimu rasuul mu wax ne fépp fu ngeen fekke ju nekk ci bàyyi bi Ibra na mel ci yéen ne sëriñ Touba lan loolu sëriñ Saalihu woo ko wax fépp fu ngeen fekke ñu nekk ci bàyyi Cheikh Ibra na mel ci yéen ne ñooñe ki sëriñ Touba lan ne nekki sëriñ Touba nag mooy nekki lépp lu baax nekki sëriñ Touba mooy nekki lépp lu baax te nekki sëriñ Touba jafe lool ndax daana wax moom Serigne Touba ne nit a ngi fii ci man te lu dee ne géej dox na sama diggante ak moom waaye ku ne ci bàyyi Cheikh Ibra ci Serigne Touba nga ne loolu bu ko ñépp déggoon te xam ci sëriñ bi ndax sëriñ bi ku jafe la waaye yërmandeem la sàkke jëmmi Cheikh Ibra ji Tek ko ci sunu kanam ngir mu dimbali nu ci mom nangoo naa ki serigne salih mu ne kep ku mbassa dem ci yalla ki nitu yalla ba nga yegge ci da danga ne yalla li la bëgg yalla ne la tek la njëg ga ba nga àttan ngeen ba mu yen la ko ndax neena na ku lo àttanut so doxi ñaaw te yalla du yen kenn lu mu neena waye serigne waaye bu Tuubaa ki mangasin ya yalla wol ubbil ko mangasinam yépp mu wisit lepp ba mu jeex nee na dafa ne yàlla man de lépp laa bëgg loolu ci sëriñ Saw ko nangoo nee na sëriñ Tuubaa ne yàlla man magasin yi laa bëgg nee na suñu borom ne teg sëriñ tubaa ne ko soo ma dimbalee ma jënd ko nee na suñu borom ne ko boo ko bëggee dinaa la dimbali ñu jaayante mook yàlla yàlla teg ko balaa yaa an bi yaa ihi wa fitnatul mursalina ngir jaay ko njariñu àdduna yi ak yu alaaxira ya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 te di len xamal ni wax ji mën ta ñak ndax bo wote ñu wuyis la wala ñu wote ngir sa jëm bo ñëwee lo waxati waxati war nga yëkëti ay kaddu di ay kaddu barkelu ca ña woote woon ba ñu wuyu si ak ña bokk ca wuyu si ba dégg say kàdd waaye ñi njëkk a wax wax ji matale na sëkk wax nag am na solo waaye li muy am am solo dégg gi rekk mo am solo señ ji bi mbeg señ bi neena na na li nga wax bu wir ci ak bëgg señ am di bi neena na na dégg na li nga wax bu wir dégg goge yalla and ak njariñ te dégg yaakar naa ni ku boole ak gëm ko jëfé te boko ko ding ci jariñ te lima Mangi ngeen wax ko fas na ko koo ma ngi ci won dama doli ginaaw ah. bi lolou jalle serigne bi mi ngi sante ñep di ñep di ñaan suñu borom ci ak mbaxam ci tedd ngay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci barkeb Serigne Touba doole maam Cheikh Ibrahima mu nangu ñu jëf yépp te fulal ñu ko te te te ñu teewe ko ay ati at te jëf yi yóbbu ñu ko sa maqaam ya gën a kawe sant naa ñépp rawatina nag ñii woote tey di xidmatu làmp fal fii ci lew na wal ndax ñoom dama leen di wax ni seen daayira bii seen dayre bii dama koy sagoo saa su nekk daayira yépp lay sagoo waaye yéen da cee raw daal leen wax ni leen su ngeen wootee féeg maa ngi koy man te nekkuma ci ndigal fësile naa ñëw loolee li ko waral li ma boole ak yéen da ngeen see nekk su ngeen ci nekkul woon du ma ñëw du ma yónnee waaye saa su ma ñëwee dina deg ci yeen lo xam ni sama xol dina set fe ma togon ci keur ga ci kanam modou Ngom mi ak mustafa si le chef de quartier bi ñew di len sant di wax seenu doxin ta moy chef de quartier bi su su fekkone da ngeen fe nekk benen melokan kon su ñëwee kon danaa ma sa taalibe yi waxal ci ñoom waaye dañi sunu doom lañ fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo seenu melokaan ñun ñëpp sunu xol sedd na ci te moo jiite quartier bi kon nag loolee ni ngeen ci sax bu baax fee kër gee ngeen ma dalal waa kër gi noonee rek la ñu waxee

Mhm. Mhm. loolu la loolee nag. loolee sëñ bi nee na sant naa leen ci. te it la ci man. di soññee ci yéen. li ngeen mënoon di def. te boole leen ko ak yar. ak i teggin. loolu du doon dara. dinaa leen koy wax saa su nekk. nit ki. lépp lu mu am. Ludul ab yar gis ku ko eppele bo de jay alal di nga gis ku lepp alal wala nga deg ñu ni diw damay jaya alal waye falu mako ak alalam barki démb rek la fi melon ni diw damay wonni da xamadi waye dina xamni mako gëna xamadi diw damay won ni da rew waye dina xamni ma maa rew te duma morom waye diw damay jaay bi yar waye dina xamni ma ko gëna yaru ken deg ko fen kon nak ab yar rek les di jaay ñi dula ci roy wala nga yor ko jaaxal ñeneen kon yar bii ñuy seede ci yéen ñu ngeen ko mën a boole ñu ngeen ko mën a boole boole leen ko ci loolee nag mooy liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi nag ba nga kaa man da ngay yaru yaru nag soo ko deful doo mën a am lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis ni laysal yatim liman xat maata waaliduhu balil yatim yatimul ilmu wal adab laysal jamaalu liman tuzayyinuna balil jamaalu jamaalul ilmi wal adab nee na jirim du ni ku ñak wajur jirim moy ki ñak ak yar ñak xam-xam aji taru du ni ki nga xamanteni kanam bi darafat rafet ñu ni ki moy aji taru aji taru ji moy ki am ak yar am xam-xam boo amee xam-xam te amoo yar loole du doon dara defe naa ne ñëw naa fii daaw ànd ak Assane Ba ak Modou Ngom am ñu may seet ci dëkk bi waaye kër gu ma dugg seeni waajur ñoom ñooñee lii rek la ñuy seede kon loolee ne ngeen si sax bu baax. yëngu-yëngu jamono ja dafa bari. yëngu-yëngu jamono yi daa bari. te jëmul fenn. te jëmul fenn. te itam nag. te itam. day mujj rek. day mujj. naax saay. naax te it nag. ku nekk ci leneen. ku nekk ci leneen. leneen fekk ci. ba leneen fekk la ci. dañ naan loolu day. dañ naan loolu day. mënu koo na ñàkk dal. mënu kaa ñàkk dal. waaye am na ci loolu am na ci loolu boo ca nekkee. am na ci loolu bu la ci fekkee. am na ci loolu bu la ci fekkee. naan de. dan naan loolu de. ndogalu yàlla la. ndogalu yàlla la. waaye kenn yéenewu ko. waaye kenn yéenewu ko. kon nag sax leen ci yar bi. sëñ bi nee na ñu dollee sax ci yar bi. ay liggéeyal sëriñ tey liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal sëriñ bi. tàmbali leen ko ci kër gi. tàmbali leen ko ci kër gi. te liggéeyal sëriñ bi. te liggéeyal sëriñ bi. ngeen di ko sellal. ngeen di ko sellal. di waajal ndigal yi. di waajal yàkkamti. fexe lii ngeen di am muy li lew du lu sell ngeen di ko dugal fa ngeen ko war a dugal jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla lu ci sellul deesu ko nangu yàlla dafa sell ba mu sellee ba noppi nanguwul benn jëf ju sellul nañuy sellal sunu jëf tey baña a yàkkamti. nak nag. yàkkamti nag. bari ci jamono ji. daa bari ci li ji. bëgg am ko mo xamanteni da nan gañi te léwul. te itam fitna rek lay indi ëllëg. Serigne Touba dafa wax ni. Serigne Touba dafa wax ni. wa kullu maa xalla bil iktifaa'i xayrun min al kasiiri zil anaa'i lépp lu néew te ànd ak barkeel ànd ak doylu moo gën li bari te ànd ak coono te am na ci ñoo xam ne la ñuy liggéey coono rek la leen di indil jamono jee am na ku ma woo ni ma diw nee na nañ ko ñaanal dañ kaa téye man ko fu mu nekk mu ni mi ngi rëbës ma man ko luñ ko téye mun ma yàmba mun ma yàmba man ko bu ma ko waxatu mukk wax naa leen ko ba tàyyi naa leen ko ba tàyyi loolu loolu bu ma ci kenn woo du ma ci tinu kenn yàlla lu mu yor bari na lu mu yor bari na te soxlawu ci lenn te soxlawu ci lenn lu dul jox ko ñun jaam yi nan ko wut nan ko war a wute mu jox ñu ko lam ñuy jox ñu ñaan mu barkeel dañoo wax ni al imaan tadxulu fi xalbi wal xawli wal amal day tàbb ci xol tàbbi ci wax tàbbi ci ay jëf mu door a mat kon bëgg loolu rek moo koy mottali sëriñ Touba ba mu jugee wuti sunu borom dafa amoon ak bëgg waaye bëgg ga da ca engagé wu bokk na ci téere yi mu def di tasawudu sixaar mu ngay wax ni haza awaanu linsiraaf lil maraam wajhu rabbi xaradi bidan Li moy sama njaal benn soppiku ñun ko ban coppiku ñu ko wacc xurab bi jëmmi sama borom xalaat di moy sama xemmemteef bilan salam saraamte duma ci delu ginaaw engagé wut ba am limu am dañu wax ni yalla yalla bu bu bax la bu bari la bu tabela te bari lem googee te doywu ko lenn lu dul jox ni ko ñun jaam yi boo góorgóorlu woon ba fekk ko fa mu nekk doon la mukk loo fi wut wala ku loo fi indi bari googee ak baaxam googee ak tabeem googee jaral na ko toog googee mu toogoon mu wàcc ko jox la ko nga toog. jox la ko nga toog. mu jàll ca beneen. mu jàll ca beneen. wax na loolee. kon nag loolee. dëppoo naa li mu wax. ci hadiisul xudsi. yaa ibaadi. yaa ibaadi. law anna awalukum. law anna awalukum. wa aaxirukum. wa insikum. wa jinnikum. wa jinnikum. قاموا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كلهم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المقية في في في ساقط الخلة البحر يين سما جامي ki njëkk ci yéen ak ku mujj ci yeen ak nit ak jinne bu ñu dajaloo ci benn barab kenn ku ci nek dekk ma ay loxom ñaan ma kenn ku ci nek lam ma ñaan dana ko may te du wañi sama nguur gi dara ludul puso bo fap samp ko ci geej samp ko ci geej loolee topp puso ba. loolee topp puso ba. bu mënta wàññi ci géej gi dara. bu mënta wàññi ci géej gi dara. di wàññi ci ci li fi man dara. di ci li fi man dara. waaye nag doo toog ñaan rek. waaye doo toog ñaan rek. doo toog di ñaan rek muy wàcc. yàlla bay sa tool. yàlla yàlla bay sa tool. kon nañ sabablu ci. kon nañ sabablu. liggéey liggéey yi. te it. caaxaan. bàyyi ay caaxaan. fonk ay ndigal. te bañ a te bañ di yàq. lee mu wax lii mu wax léegi. moom Cheikh Gueye. moom Cheikh Gueye. ni xam nga fa nga jëm. ni xam nga fa nga jëm. xam naa ko bu wér. ñaanal leen ma ma bañ koo wàcc. leen ma ma bañ kaa wàcc. rafet naa ci njort. te rafet naa ci njort ni. damaa jaar ci ay doomi Serigne Touba. ndax dama jaar ci ay doomi Serigne Touba. ñu teg ma dara jarul ma wàcc ko. dara jarul ma wàcc ko. doomi Serigne Touba du ku ñuy xam. du ku ñuy xam mukk. waaye am na lu ma wan. ca loolee ca laa fas yéene. ca nag ca laa fas yéene wéy. ku ma àndalit. ku ma àndalit. si laa la fas yéene awale. njariñ li itam nag. njariñ li itam. bu wér. gis naa ko bu wér. bi ma sañoon itam. bi ma sañoon itam. Yen ñi ma sunu borom booleel. ngeen gis njariñ loolee. loolee sunu mag ju baax ji di wax. loolee sunu mag ju baax di wax. di sunu di sunu royukaay. di sunu royukaay. di sëñ am di faal. di sëñ am di faal. naan li ma mus ci ndigal. naan li ma mus bëgg ngeen mus ko. loolu laa bëgg ngeen mus ko. man mi ci man mi ci la. ci seen kanam. ci seen kanam. laa joxe ab oto. boole lu bari joxe. boole lu bari joxe. oto bee ma taxawal ne. oto bee ma taxawal ne. moo gën ba ma joxe woon. moo gën fop ba ma joxe woon. ma joxe oto. ba ma joxe oto. ma jox oto. nit moo ma jox oto. ma jox oto. ka ma jox oto. jox nañ ko oto bu gën boobee. jox nañ ko oto bu gën boobee. oto ma mës a joxe oto bu ma joxe mës joxe nag. jox nañ la ko gën. jox nañ bu ko gën. waaw waaw. joxe naa oto. joxe naa oto. di àbb oto. di àbb oto. ak di luye ak di ay kalandoo. am ay oto. am ay oto. fii ma toll nag. ma toll nag. li ma fi toll la. li ma fi toll le xam naa ko. bu dul woon sama war-war. woon sama war-war. te xam ne Cheikh Ibrahima mi ma yaakaar. te xam ne Cheikh Ibrahima mi ma yaakaar. la nekkoon. ci la nekkoon. ma di ko roy. ma di ko roy. gis naa njëriñ. gis naa la bu wér. te nit nak du gis njariñam di sagane ken mën ta tax ma Ken mën ta tax ma sagane ko lolé nañ nga wax lolé ñu wax ku dem nga dem ku dem nga dem ku demul nga dem ku demul nga dem moy man sila nek sila nek si neexuluma ci kenn sëñ bi nee na ku bëgg dem na ñëw ñu dem te yéen ñi may waxal lii ma leen di wax lii ma leen di wax su nekkee xam ngeen su nekkee xam ngeen su nekkul xam ngeen yenn yi nag nag ak font la nañu xam nañu xam kan nañ xam bu baax kan moy serigne bi xam li ñu serigne bi defal moy lan ah, ñu fas yéene ko téye bu baax ñu fas yéene ko téye bu baax jëfe ko bu baax jëfe ko bu baax dinañ gis njariñ la tey dinañ ko gis ëlëk tay buñ koy def ñu def ko ngir santane serigne bi waxna ko seigne Cheikh dem sen kalam waxna ko seigne Cheikh dem sen kalam sasoon ci addiya bi ñuy yóbbu lim ñu sasoon ci addiya dama ne ko dama ne ko lii nga may sant lii nga may sant danga ma koo sant danga ma koo sant ma di ko jëfee ma di ko jëfee ngir li nga ma ko sant waaye war laajuma la ci lenn waaye laajuma la ci lenn soxla ma ci lenn soxla yu ma ci lenn li ma ci soxla daal li ma ci soxla mooy mooy ma gën koo man ma gën koo man rek ndax yàlla ndax yàlla dafa wax ni na ngeen ma jaamu te jaamu googee bu leen ci bëgg àjjana bu leen ci ragal sawara waaye soo ko dee def te yàlla tax yàlla kese lay doon yàlla kese nag du jeex tey a ngi ci ëllëg a ngi ci kon yàlla képp moo jarawut Cheikh Ibrahima Fall ba ba muy jóg di wut sëñ Tuuba jënn jëmmam képp la woon doomam ju nekk seex nga borom baatin nga di def di dindi tey faj aajo sëtam bu nekk ak sëtaatam bu nekk seex nga bayoo góoroo yattoo demoo marché lañ ko may nañ ko xam bu wér

kenn mën na koo am ci yombal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sunu borom dana ko lu ma bind yaa ma ci gënal te da koo teg makka la gane àddina makka la gane àddina ñu génn ko jëmale ko màddina lu nekk def na ko lu nekk wan nañ ko ko te dani ko ku ma bind yaa tax yonent yi njëkk yi ak yu mujj yi yëpp yaa tax ma bind leen te it moo mujj ci yonent yi te yonent yi def nañ téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni moo leen di ñeenteel te moo ci mujj te moo ci gën te sunu borom da koo teg kon lu baax kenn mënu ko am te sonnoo nañ bàyyi caaxaan yi ku ci yàq ku ci yàq wala nga jaaxle sëñ bi ngay woo woote ñu si la te woote ñu wuy si la ku ko def ku ko def yaa ko jëf lii ma leen di wax lii ma leen di wax du ma deñ mukk di leen ko wax ànduma ak yéen ngir àddinay kese dama bëgg ëllëg yowmal xiyaam xiyaam Fall day séddale ñu sédd ñun nag luy séddale nag sédduwu la jërëjëf ku ci sédduwul sëriñ bi nee ku ci sédduwul ku ci sédduwul ci yow la oto bee ñi fi nekk yéen ñi fi nekk laajuma ci kenn dërëm kenn ma ci kenn def ab tabax. lu ma leen laaj lépp lu ma leen laaj. ndigal la tax ma képp moo tax ma leen di ko laaj. li ma leen di laaj itam. li ma leen di laaj itam. te ngeen koo jaayante sama digganteeg yéen. dinañ ko jaayante sama digganteeg yéen. ña ma ko seqalul. ña ko seqalul. waxuma leen ko waxuma leen ko. leen ko wax nag. dinaa leen ko wax nag. te itam nag. te itam. du ma noppee denc di ko wax. du ma noppee denc di leen ko wax. yow mal xiyaam. xiyaam. Dan laaj lima ma ànd ak dañ may laaj lima ma won ak yeen kon nag bu boba kon nag bu damay ñaan yalla ngeen am ndam. ma am ndam. su ngeen ko deful su ngeen ko deful. man ma layoo du ngeen ma mukk. ci la nek len wax fi ma ko. man nak man nak sama jëmi bop sama jëmi bop am loo xamante ni. dafa am loo xamante ni. damaa dégg jenn kilifa wax. damaa dégg ak kilifa wax ko. ba ma ko déggee ba léegi. ba ma ko déggee ba léegi. ñii njëkk wax. ñii njëkk wax. seeni wax niñ ma soññee. seeni wax niñ ma soññee. waxi kooka la la ma soññee. waxi kookee noonu la ma soññee. damaa mës dégg benn kilifa mu ni. damaa mës dégg benn kilifa mu ni. yowmal xiyaam. yowmal xiyaam. yërëm naa ku ñuy topp. amoo te amoo fa dara loolee lu jar déglu la loolee lu jar a déglu la sëriñ bi nee na loolee dina am du caaxaan de du caaxaan ay nit ànd ak yow ay nit ànd ak yow ngir yàlla ngir yàlla jox nañ la suñu bopp àdduna ak alaaxira jox na leen suñu bopp ak alaaxira fa nga leen war teg tegoo leen fa la loo wax ñu ni dëgg la. bu dul woon dëgg sax. bu dul woon dëgg sax. ñu ni dëgg la. ñu ni dëgg la. bala nga bala ñoo lekk. bala ñoo lekk. nga lekk ba noppi. nga lekk ba noppi. di bay la jox. di di di liggéey di la jox. di di liggéey di la jox. di liggéey di la jox. lañ la jox defoo ko fa nga ko war a def. te lañ la jox defoo ko fa nga a def. doo am doo am dara yomal xiyam. ku ñuy jox te yàlla tax. lay jox te ña lay jox te yàlla tax. soo leen ko deful ci yoonu yàlla. soo leen ko deful ci yoonu yàlla. ëllëg duñu doon sa morom. ëllëg duñu doon sa morom. dañ lay raw. te bëgguñu ngeen raw ñu. lii laa leen di sant. lii laa leen di sant. li may jariñ. li may jariñ. maa koy jëfal sama bopp. maa koy jëfal sama bopp. jëflu leen ma ko. dégg ngeen léegi kama doon waxal ci néeg. dégg ngeen sànq kama doon waxal ci néeg. bala ma koo gis. daa ñëw ne ma dama am concours. daa ñëw ni dama am concours. voilà ma war a dem. wala daa am fu ma war a dem. doo ko gis ndigal doo ko gis leneen. doo ko man ko bu fi ñëw te dama wax yooyu. man bu fi wax yooyee. ah déedéet ah. ah. bu bu kenn ñëw di wax lool. ku ci bëgg nag. loo nekk ma nekk ca. li ma boole yow nag ci nekk. ku ko ci deful nag. ku ko ci deful. loo nekk. loo lépp loo nekk. bu ma woo. koo ci xamante képp koo ci xamante ne. dem naa ba xam sa pas-pas. naa ba xam sa waaye damaa xam ne sa kàttan àggu fa. waaye sa kookee. yamale naa kook. yamale naa ña am kàttan di jëf. jërë ngeen jeuf asaman set na ba nopi waye nak dajje dafa yombul te li lepp dañ ka war di waxtaane tubaab yi nga xamanteni ñoy niti yi suñu dañuy waxtane ala bokk kon su suñu dajee war nañoo waxtaane suñu alal te yoonu Baay Faal wii du ay téere du ay du ñu ay bind jox ko nit ñi ñu di ko jàng war a xam lu ci nekk njiit yi ñoo war a wax ak nit ñi ñu xam fu ñuy teg seen tànk ku ko ci deful njiit lu ko deful ëllëg da nga ko rëcc muy man di sëñ Seex Jëmb. di sëñ Seex Jëmb. di keneen. Ah. ci topp rek Seex Ibra. képp kuñ ci topp Seex Ibra moo tax. kon la Seex nekkoon. kon la Seex Ibra nekkoon. nañ ci nekk. nañ ci nekk. yéen gone yi dégg ngeen. yéen laay gën di wax. ku ci jóg wër na mbubb mu rafet. nangu leen liggéey. topp réew mi di wër. seen maam yi nekkuñu si woon nee nangu liggéey rawante gi nga foofu fi ngeen yand fanaane feneen da ngeen dem ba li ñu jëpp leen nekk leen la seen maam nekkoon lépp fekk leen si te bàyyi wëndeelu bi wëndeelu amul solo nit koo xamante ni jógee sa kër. boo jógee sa kër. kër goo dem. kër goo dem. yaay moom kër ga. yaay moom kër ga. ba keroog ngay dellu. ba keroog ko may da nga koy may loolee da koy xam. kon xam leen li leen may. li leen may. nit nag. nit nag. bu bokkee mbooloo alal. bu bokkee mbooloo ak alal. alal ja. alal ja. day fexe ba am ci wàllu boppam. day fexe ba am wàllu boppam. dama koy wax doomi Sëriñ Tuubaa yi ma jaar ci ñoom. doomi ma jaar ci ñoom. kenn ku ca nekk ba nga jógee néewoon ni sëñ Tuubaa rek mooy sama waajur da ngaa roy li sëñ Tuubaa batale ba am sa cëru bopp yéen ñii nag nekku leen ca lool fu ngeen yendu fu ngeen yendu bu ëllëgee ngeen yendu feneen fu ngeen fanaan bu ëllëgee ngeen fanaan feneen ku ca nekk ca la ko war la ko ca war a fekk dana ko ca fekk. kon nekk leen ci loolu. kon nekku leen ci loolu. xam li ñu leen defal. xam li ñu leen defal. nit bu amee alal. nit bu amee alal. te alal bi ñu bari am. te alal ji ñu bari ñu bëgg kaa am. te amuñu ko. te amuñu ko. day xam la ko may alal. day xam la ko may alal kon xam leen li leen may seen alal. kon xam leen li leen may seen alal. Ah, li ci des. li ci des. sant naa ñëpp. naa ñëpp. gërëm naa ñëpp wax ji nag bari na waaye mënta ñàkk dañ naan sëñ Cheikh day wax dañ naan sëñ Cheikh day wax dañ naan sëñ Cheikh day wax yonent li def ci addis bari lool waaw. alxuraan lu mu doon. alxuraan ay wax rek la. ay wax rek la. ñu naan ab sëriñ day ñu naan ab sëriñ ab day wax. ku ñuy topp da ku ñuy topp da ngay wax. nit day tege ci yoon. yonante bi def ay addis. yonante bi def nay addis yu bari. alquran lu ko dalee baqara ba naas ay wax la. lu ko dalee baqara ba naas lépp ay wax la. te sunu borom. te sunu borom. bu muy yónni yonante bi. bu muy yónni yonante bi. sallallahu alayhi wa sallam. wa ma arsalnaaka. wa ma arsalnaaka. ilaa rahmatan. ilaa rahmatan. lil aalamiina. kaafatan. basiran. wa nasiran. du loolu. léegi nag li ma gis. Bachir rek laa gis. Nasir gisatuma ko waaw. sëñ bi ne di wax nit ñi li leen neex rek la gis ah? waaw. sëñ bi ne na ko ñëpp baal àq ngeen jëf. sëñ bi ne na ko ñëpp ñaanal. sëñ bi ne lu mu bëgg. së mbokk taalibe yi. Ah, sëriñ bi dana li mu bëgg mooy. kattan. kàttan gu ma liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ku may ñaanal nak te boolewoo woko ci téye sag ñaan amin amin Fall amin Dedi. evet. Evet. <laughs>